Allah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 والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله الله سمع الله ربنا الله الله asalaamaaleykum asalaamaaleykum.

mbooloo mi sëriñ ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na mi ngi nuyu ñëpp nee na rawatina bokki bokkam yi xam ne lépp loo xam ne am na fi ñoom ñoo ko fi def ñoom taalibe yi nee na kon mi ngi dénk boppam di nu dénk xam ne Touba gii. xam ne Touba gii. lu fi yàlloo rek moo fi mës a def. lu am na yu bari yoo xam ne yii. ci am na yu bari yoo xam ne nii. lu bokkut ak dafi nekk ci bokkut ak li yelloo dëkk bii. mu bëgg ñëpp taxaw. nee na mu bëgg loolu ñëpp taxaw ci. lépp loo xam ne waaye gis na ko fi. moo xam ne mu ko fiy def ci loolee yelloowul ak dëkk bii. na ko yëgle. nee loolee na ko yëgle. ñu ñu ñu faj ko nañu ko war a faje ndax nit moom bu amee lu dul lenn. loolee mu am da ko war a fonk. nee na màkk ak madina gee nga gis. ñooñee fa nekk. ñooñee fa nekk. dara. bokkuñoo ak yonent bi dara. ñoo ko bokk ñun ñëpp rek. ñun ñoo ko bokk ñëpp rek. te ko fonke. te nanu fonke yonent bi. waroon ko fonke sunu kii. kon rawatina kon nanu fonk yonent bi nan nun war nañ koo fonke sunu kii. muy Serigne Touba mii muy Serigne Touba mii. kon nag war seet. nee na kon nag war nañoo seet. foofee. foofee. la nga xam ne nanguwuñ ko ko. la nga xam ne nangee su ko foofee. warul ko nangu fii. koo nangu fii ci dëkk bii. nee na loolu rek la ñu bëggoon a wax. liggéey bi nag. liggéey bi nag. tàmbali nañ ko. tàmbali nañ ko. waaye it. gi it. tàmbali gi it. teguñu ci lenn lu diis ci kenn. nee teguñu ci lenn lu diis ci kenn. sasuñu ci kenn it. sasuñu ci kenn it. noonu daal ngi ci rek. noonu daal ñoom nekk. cee nekk. ba mu yegg rek. ba mu yegg rek. xam na ne. lépp lu ci war dem. lépp lu ci war a dem. des na ko ci def. ab coono du ci am ab coono it du ci am. nee rek la ñu bëggoon a yëgal. ndax nit. bu amul lu lenn. lenn. ku yëngu ca loola. ku yëngu ca loola. boo ko ca fekkee. boo ko ca fekkee. def nga la def nga def nga la la loolu rek mooy li am solo. ci nee loolu rek mooy li am solo. kon na kon nag moom mu ngi nuyu nu gërëm. di nu sant. di sant. ci taxawaay bu rafet bi ci taxawaay ndax eh, sawru Ramadan. ndax ndax sawru Ramadan mi nu génn. li ngeen ci jëf lépp. li ci jëf lépp. ci lu baax. yëg na ko. yëg na ko. jàpp na ko. xam na ko. mi tax ngeen di ko def. Serigne Touba mi tax ngeen di ko def. yëg na ko. yëg ko. xam na ko xam na ko. jàpp na ko jàpp na ko. te nangul na leen ko. te nangul na ko nii kon nag nanu boo sant yàlla bu baax. jërë ngeen jëf. nawet bii nu nekk it. na ko sunu borom sottil. ngir nu mu muroo ko. ba ni ñu ko bëggee nu amee ko. bëggee nu amee ko ni. te te te bekkoor géej faawu rek. te bekkoor géej ci réew mi faawu rek. koy ñaan nee na lool na loolu ni nga koy ñaan ci daraja ki nga xam ne ki nga xam ne mu Cheikh Mamadou Fadal mu Cheikh Mamadou Fadal ndax moo daan wax na am ndax moo daan wax mu am mu am mu am mu am du am du am du am du am kon nag kon nag ki nga xam ne ki nga xam ne moo daan wax loolu soriwu fi ma nga nee ma nee buñ ko waxee dana ko dégg buñ ko waxee dana ko dégg ko def dana ko def kon jërë ngeen jëf kon jërë ngeen jëf euh, euh, li bëgg nag nee na li bëgg nag ci dëkk bii. mooy li ma waxoon léegi. mooy li mu waxoon léegi ci tàmbali bi. dafa am ay gone yoo xam ne nii. dañu fee nekk. dañu fee nekk. di fi andi yëfi àdduna. te loolu nanguwuñ ko. te ko ci dëkk bii. ñi nga xam ne ñoom la wuutu fii mu toog. nee na ñi nga xam ne ñoom la wuutu fii mu toog. ci Zahir. ci Zahir. nanguwuñ ko woon. nanguwuñ ko woon. man mii fi sama borom kon nag moom mii fi suñu borom tegit. ci coobare boppam. ci coobare boppam. du ko nangu. loolu rek la ñu bëggoon a xamal. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. fu waay nekk na tàllal loxoom.